Euh, lii defoon nañ ko daaw euh, fekkee déwén am na lu wolof di wax defoon naa ko daaw fekkee déwén damay baaxanta daaw biñ koy def beneen position lañ nekkoon ndax yore bu mairie euh, ren bi ñu yoree maire bi imam Issa ak ñi mu àndal ñëw wax ñu ko ñu ne leen rafetlu nañ ko trop te dinañ ci jàpp kon moo tax ñu jàppaat ci may sant ñi ci jàpp ñëpp ku ci nekk ak loo ci mënti def rek yàlla na yàlla boole yiw googu yow seddale ñu ko euh, lii dafa rafet ndax ku nekk sa dëkk moom ngay tiitaroo defe naa ne ñi fi ñëw tey seen xol tooy na ndax ku dégg xale yii leen fi jàng tey xam ne commune Diass alxuraan tumuraankewu fi te bu fi alxuraan tumuraankewul yéen ko liggéey yéen ustaas yi kon lu ñuy njàng yéen a kon yéen lañ war a gërëm di leen sant métier yëpp jàngale moo ci gën a ndax jàngale mooy tabax nit mooy tabax doomu aadama jàngale métier la métier bu metti waaye mooy métier bi nga xamante ne moo gën ci métier yi yàpp na kon dañ leen di gërëm di leen sant di gërëm waajur yi aussi yi nga xamante ne ñoo am pas-pas ba dénk leen xale euh, sama wax bu bëri euh, da dul sant ñëpp rek di sàkku tamit ñaan ndax commune Diass commune bu sant sax soxla ñaan ndax te jii dafa naa ne Diass bokk na ci maire yi ñu gën a teg bët ci Sénégal kon Diass soxla na ñaan soxla na pas-pas soxla na xam-xam soxla na yu bëri waaye rawatina ñaan ba tax na dañ leen di gën a dénk ngeen ñaanal gox bi ñaanal ñu yor gox ñaanal ñu dëkk ci gox te xam naa ne yéen a ñaan mais ñu leen sàkku ngeen gën ñu ñaan ndax jàmbaar amul ku yàlla jàppale rek moo euh, may dénk balaa may jox imaam Salif mu waxtaan ak may dénk rek sama bopp di dénk ñëpp surtout acteurs politiques yi ñuy wut ak wutin bu rafet ñuy wut ak dëkk ñuy wut ak wax dëgg ñu jiital dëgg ci lépp ndax alxuraan defe naa ne dëgg rek moo ko te jikko yi nga xamante ne mooy jikko yi yi ñu gën a sib bokk na ci wax lu dul dëgg bokk na ci wax lu dul dëgg ndax lu dul dëgg mën na indi guerre ci àdduna mën na indi bañante Rwanda 1994 ci diir bu manqué téeméeri fan lu mat millions yi doomu aadama génn ci àdduna ci xeex boo xamante ne lu ci ëpp arme blanche lañ doon xeexee muy paaka ak jaas la waral loolu dafa woon benn rajo bu ñuy wax rajo Mille Collines ay nit di fa wax suba ngoon lu dul dëgg fexe ba tutsi yi ak utu yi. di xeex seen biir ci loo xamante ni lu dëkk kon wax dëgg dafa baax lépp lu ñuy def nañ ci jiital dëkk loolu laa dama koy dénk suma bopp di ko dénk ñëpp àdduna bi nag léegi dafa am Facebook am WhatsApp am yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne da ngay tëju sa biir néeg bind lu ñëpp di gis imaam gis nga loolu de yow booy xutba ci jàkk ji ci jumaa ji waa jumaa ji lay dégg ak ñi ko relee waa ji tëju ci néegam kenn raxu kenn xamul ci koom lan la mel mu am possibilité communiquer ak ñëpp am possibilité wax lu dul dëgg loolu dul dugg dëgg dugg ci bopp yëpp su dee daje nag bopp yu dul am segg yu mënul segg bopp yooyu jàpp ne dëgg lu dul dëgg loolu dëgg looloo tax kàddu dafa doy waar rawatina surtout ñun acteur politique nga xamante léeg-léeg su bëgg suñu bëggee day mat ba suñuy ngor manqué ndax ko ci barma dafa doon bëggee du mat ngor mat waaye bu dee imaan am nga ko sa bëggee dina mat sa ngor mat nañuy waxante dëkk di wax luy dëkk bañ a wax leneen lu dul dëkk surtout ñun si suñu tund bii nga xamante ne ñun ñëpp ay mbokk la tey su ma demee ci li mu ngi mel ni maa ngi jas ay mbokk rek lañ fa soo demee mbayaar la même chose soo demee toglu la même chose balaa nga may xam dëj am wala ngénte am ñëpp benn la kon lépp lu ñuy wax nañuy waxante dëgg sànq imaam Yuusu junjul na ko ci nawetaan da ngay gis ñaari quartier yu denn bu ñu waree football kenn dootul am jàmm bu ñu footballee ba noppi kenn dootul am jàmm est-ce que xale yooyu nga xamante ne xale yu ndaw la war nañu teel a dugal ci seen bopp yi pour ñuy bañante est-ce que war nañu dugal seen bopp ne quartier bi sa noon la wala kilifa gii sa noon la kilifa gii da la bañ est-ce loolu war nañ ko jëmbat ci dëndu xale nañu def très attention nañu def très attention ñun ñëpp ay mbokk la nañuy bëggante sunu bi yénente jàmm loolu daal imam bëgg naa ci seeni xutba yi ngeen gën ci insister xale yi nañ leen gën a xamal ne ñun ñëpp benn lañ ñëpp ay mbokk ñun ñëpp suñu yéene baax loolu laay jàpp damay rafet jot waaye yéene yooyu nañ ko matal ndax àdduna bi léegi ni mu demee wax lu dul dëgg daf ko xaw a yàq daf ko yàq ci lu bëri